suñu gox bi bu mu ko yàq ñun fii lañ juddoo fii lañ màggee secteur bi fii lañ yaroo kenn mësuñ ñoo gis ñuy def lu ñaaw kon benn étranger du jugee fële jël kër jël kër bâtiment abandonné ñu bañ ñi këpp ci mbalit ñu abal la ko nga fiy def ay auberge man mii dem naa ba ci moom waxam ma mënu ma samay caga ay carte lañ yor mënu ma ci dara koñ bi na ñu bëri ñu ko waxam moom mu ne leen li may def kenn mënu ma koo teree def ci laay dunda sama njaboot te policier yi ma fi jàpp ci laa leen di jox loolu la wax ci gémmiñam ba pare ñun dañuy gis bu ñu ñëwee ñun comprendre ñu parce que auto bu gaaree bu leen yóbboo. ñun dañuy toog ci kanam tuuti gisaat leen ñun ñëpp ñu ñëwaat. c'est bizarre ñun loolu jaaxal nañu. te li muy def fii ñëpp ci teg seen bët am nañu mobiliser woon dem ba ca police ba pour taxaw témoin ñoom ñoo ci teg seen bët lii ak lii ak lii ak lii parce que xale yi koñ bi xale yu góor yëpp a ngi yàqu xale yu ndaw yëpp a ngi yàqu xale bu ci amul xaasa di fexe noo ko sàccee pour yóbbu ko kër googu. awso yu ndaw ndawaan ñiy liggéey fii foofu la ñuy dem ndax caga ji yàq nañ koñ bi yàq nañu koñ bi léegi mu ne moom kenn lu wax li muy def kenn mënu ko koo teree def mu jaral la yow ngay fekk nit nga song ko lekk tuñam ah naan ko dinaa lekk kanibal la dinaa lekk leneen ci yow yow yaa ngi lekk nit ki tuñ ñëpp a ngi taxaw mu seq tuñ bi gisuñu fu mu koy yàbbee gémmiñ gi yëpp takk dereet gémmiñ gi yëpp takk dereet ñu gisuñu fu mu yàbbee tuñ bi lekk la ko def ba pare muy dem di faju ji nga dab ko ne ko dinaa lekk leneen ci yow pareegu ma dama lay lekk. dëkk bi am na yoon nanu bàyyi yoon mu def liggéeyam <laughs> muy lu doy